ngeen da ngeen di abonné ngeen mën a jot moo leen vidéo boo may interpeller Mouride yi nag Jeune Afrique bi mu taxawee fii yàq sëriñ Touba lu mel ni xeme caricaturiser ko na Mouride yi def Jeune Afrique nañ ko def Sud Quotidien Sud Quotidien ñàkk ko liir taxut a xam li xew ci réew mi ku ne mën naa xam li xew ci réew mi te Sud Quotidien doo ko jënd. journal boo xam ne ka ko am ak ka ko moom yitteem ak xalaatam ak i pexeem guddeeg bëccëg mooy xeex sëriñ Touba ak xeexu njabootug Serigne Touba kooko kuy murit jël sa alal di ko jox na la leer ne yaa ngi jàppale noonu Serigne Touba loolu ñu ngi ci interpellé képp kuy murit te gëm Serigne Touba ak foo mën a nekk Sud Quotidien na nga ko boycotté bu ko jëndati bu ko liir même internet bi bu ko liirati Serigne Abdou Lahad Mbacké ba muy tere euh, yam daan yam doon tere Touba naar ba ko bàyyiwul woon daf ne murit yi dara bu fa kenn dem di jëndati naar baa dem ba dem ba boutique ba tëj boutique bay bëgg a daanu mu ñëw si ablaat ne ko si ablaat day la nga doon digle moom fas yéene naa def lépp loo digle fas yéene bàyyi lépp loo tere loolu moo koy faj ma jambal jaañ moomul nit ñi mënta ŋàbb làmmiñam wi fu mu xam ci lu bon ci lu ñaaw yàq ko Serigne Touba fu mu xam ci lu bon yàq ko Cheikh Bass Abdou Khadre lii nag tey Cheikh Bass la bu ëllëgee dana attaqué keneen ku dul Cheikh Bass dana attaqué beneen kilifa diine bu bokkul ci yoonu murit dana attaqué beneen kilifa diine bu bokkul ci yoonu murit lii la ma jàmbal dimbali ñu ñun tal nañ leneen lu dul sa coow yi ngay wax réew mi jàmm la laaj réew mi dal la laaj wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ngeen jot suñu vidéo nag foo ngeen di mën a jot moo ngir mën a xam li xam ne